MCS International, études et formations à l'étranger. Vous êtes élève du terminal, bachelier ou étudiant, obtenez votre admission dans les universités françaises, américaines ou canadiennes. Grâce à MCS International, vous bénéficierez d'un accompagnement et d'un suivi pour la réalisation de vos projets d'études supérieures à l'étranger. Contactez-nous vite au 33 868 69 28 ou au 77 826 maa ngi sant yàlla bu baax. ku ne xam ne yaay ménageur Reug Reug. ñu gis mu génn ci sorte bu am solo diggante ma guy gi. waaw mën nañu ah maa ngi sant yàlla rek bi ñu ci duggee ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbi alamin mhm. di ndokkeel ñi ñu doon jàppale ñëpp. di nuyu ndokkeel famille làmb kenn gañewu ci. Mhm. ci ñoom ñaar senegal moo ci gañe ñaari doomu réew mi ñoo doon bëri. def ko ci fair def ko ci discipline. yàlla tànn ki ko neex mu may ko ndam. Mhm. di féliciter Reug Reug di encourager guy gi. Lamb dal non rek la. rek Reug yaa ko yor nak nga gisee xale bi nim mel ci bir lamb rek ah, rek dem mi ngi ci yonam di dem rek ku jël may liter lit avec euh, frappe jël mi liter lit simple jël tournoi yëpp don champion d'Afrique don champion cdao def 16 combats 14 victoires 200 cent verdict ah ñun ñoo ngi ci suñu yoon di dem rek ah. bi ngeen jëlee guuy gu coow li bari woon trop. wa mais ko jitu ci lamb moko ëpp ko jëloon rek pour gëna relancer wu mais du won combat wax deug yalla dedet ah. du won combat de parce que ñun xamoon nañ li ci xew lepp mais guy gi la xam nga ne guy gi ndaanaan. waaw la mais génération yi du ben hmm. beure xalé tay nak ku koy jël. Hmm. na nga xam ci li ngay dugg lan la. Hmm. parce que boudé beure man nako ma sha allah man na xex am na kàttan xale la. te am na jàppale. dañ koy dégg mu ne gaal gi da koo sar biir géejawaay. waaw bi combat bi jeexee yow nga def sorte nga ni. Balla ngeen jeex na. mais fan yii coow li bari na de. ñu ne digganteem ak Sa Thiès moom la àdduna di xaar. waaw ñun ñu ngi xaar rek. Ah. kenn contacté guñu géej waay laa koy bàyyi. bi ngeen jógee seen combat ak euh, guy ga ba léegi promoteur woowu leen. non kenn woowaguñu nag. Hmm. mais ñi ngi xaar daal xam naa ne danañ ñëwoo dañuy waaj rek hmm. waaw. potentiel adversaire am kan la. ah xamaguma ko de. ah xam nga ndax yaay manager am ah, mais prochain adversaire parce que. géejawaay a ngi fi Pikine na ngi fi ñeneen a ngi fi. Hmm. mën ñu jox keneen mën nañu yóotu. ñaara fa def su ma muy la de Guiers ak euh, Sa Thiès mi ci contrat. ah mais de toute façon daal ñun ñi ngi xaar hmm. ku ñu làmb boole rek danañ ko jël. Hmm. waaw. ñu ngi xaar ngeen jël waaw. Hmm. ñu ngi xaar daal visé wuñ ci benn mbër mais ku ñu làmb booleel danañ ko jël. rëdd ci biir làmb visé ci biir. Ah, loolu beneen affaire la. waaw bu ñuy tëkkale ñaar. am na ko mën. am na ko mën mën mën nga koo mën nga koo tënk nii rek. di jubilee nga defi affaire. waya ah, buñu ñu ubbee ba. mais loolu loolu affaire la. loolu père galaj la wala mën bëri la wala. gàllaaj du dara man li ngay def rek te di domi mbeur papa Ndiaye Ndiaate mo mënon ci génération mo jur yaayam. Mhm. Modou kan mo mënon ci génération mo mon bayam koku bété bété la. Mhm. kon il faut bu ñëwé mu neex. mu neex waaw. mais leen jëlee saa Thiès nag di ngeen xam li ngeen bëri guy gi bi passé. ah waaw xam nga joxon nañ ñuko fi. la yaax combat ba ci ñoom la joggé ah. la fi newoon a fi ba tay rek. Ah, bu ñëwé ci mbaru yaax ci yeen déggoo li mu la la ko yàqoon ci ñoom la jóge nañ ko doxaat ba xam fu muy yàqu bu ñëwee pare ngeen pare nañu yàgg na ah. ñun <laughs> ñun dañoo pare doog a ñëw ah. mbër mu ndaw du préparé day pare te ñun mbër mu ndaw la ñu yor ah. waaw mu ngoog bëgg naa ci yow Pape jaajëf jaajëf merci Então, français yi nga xamante ni dafay décorer sa cuisine ba mu ne boy ak li nga xamante ni moo di sa salle ànd ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ni boo ko defee sa façadu kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël benn yoon ndox ba noppi ay qualité yu baax la ñuy jaay te seen karo du yàqu waaw waaw kon nag yow mi bëgg ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk ca Parcelles Assainies ca booru marché police ba seen numéro téléphone 33 3 820 39 95 wala 77 720 32 44 établissement Khadim Rassoul nak dañuy ubi du lundi au dimanche à demain kon nak bo bëggee ay kar yu bax dawal gaaw wa établissement Khadim Rassoul ña nek fofu ci parcelle Parcelles ci marché police établissement Khadim Rassoul le choix de